والقلم وما يسطرون yi compagnie Serigne Seck Sénégal C3S moo ñëwaat ak yéen ci jongante bi mu baaxoo amal at mu nekk tuddee ko yaatal mbindum alxuraan ren di ñeenteel bi édition ku ci bëgg a bokk da bind lu tollu xët ci alxuraan bind sa tur sa adresse ak sa numéro téléphone yóbbu ko ci butiku c 3 bi la gën a jege ci Sénégal wala fépp foo xam ne raabita bi wala fédération bi ëmb jàngalekatu alxuraan yi ci Sénégal am na fa dépôt candidature yi di mbindu jagleel ko région yi di Matam Tambacounda Ziguinchor Kolda Sédhiou ak Kédougou ngir gën a suqali mbind mi ci gox yooyu le ñett ñi jiitu ci concours national bi dinañu am neexal yu am solo yu ñu leen jagleel premier bi dina am 6 millions deuxième bi 5 millions 500 troisième bi 5 millions kuréel bi saytu concours bi mu ngi fàttali candidat yépp ne ku ci nekk benn dépôt la war a def ak foo ko mën di defee ci biir réew mi kayit wi ngay déposé it yaa ko war a bindal sa bopp ku ci bëgg yeneen i leeral wooteel 76 751 43 42

ay ca mangook mangook yëgle kaaya ngook ma ne ñaareelu vague baa ngay def musibaam de ma ne nag menace dëgg nag mi ngi am nag ay lii fu ñu jëm ak mbas mi de ay fu ñu jëm ak dëkkandoo bu bon bi ay fu ñu jëm ak jàngoro ji jàngoro ji woqul ma la su booxul ma la jàngoro bi toppee nga ñu mboor l'observateur journal groupe Futurs Médias bi amul tiitaange de ci ñàkk sàmmoonteeg gestes barrières yi di lu jëm ci ndénkaane waa kër docteur moo tax di wàllante gii de covid bi ma ngay daagu nu mu ko neexee journal groupe Futurs Médias bi ba tey de moo doxantu ba ca Vélingara ma ne fekk fa xale boo xamante doon def ca lycée moom dañ ko test mu positif de laa ilaha illallah cey fuñ jëm ak mbas mi doon nag gan nag wàcc aéroport ba doon nag nationalité sénégalaise di ko ak communautaire ma ngay bëgg nekk nag ab élève ma nga bëgg a dugg ca classe laa la wax le virus est dans le système éducatif ay waay ji Abdoulaye Diouf Sarr ministre de ci journal bi biir yëglekaay bi ne day lii nag mooy dëgg-dëgg nag njàqare jot na ma ne deuxième vague bi li muy def ci njombe moo jégg ko gën a jéggi dayoo lay gis ci xeetu jàngoro déet waaye monsieur ministre tribune yéen a kaay ne de loo ci mën a dégg mooy record ba de ma ne lim baa ngay bëgg bëri ma ngay yokk xoolal ma lii rek ma ne de journal des bi ne covid 19 bi xoolal démb lu ñu am téeméer ak ñaar fukk ak benn ñoo xamante ni xëy na ñu amee mbas mi juróom-benn fukk ak juróom-ñeent cas communautaire mooy wàllante ga ma ne li ca gën a yëm mooy juróom-benn doomi aadama su su aane waaw xoolal ma jamono ji mbas mi di def njombeem di gën di yokk laa la wax Sénégal yenn ci këru docteur hôpitaux bu Linguère la ilaha illa personnel ba fay faj laa ay masque leen rey xoolal ma ne laa la wax masque amuñ ko ca jamono bi nga xamante ni le quotidien yéen ne feebar bi mi ngi gën di yokku laa la ci faat juróom-benn doomu aadama ci diiru fukki fan dong dong dong dix jours laa la wax ci dix jours juróom-benn bakkan wadd inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ma ne professeur Didier Raoult ne bu leen tiit def leen ndànk bu leen am njàqare ci le soleil yéen kaay ne ma ne war avancé ma ne nag tey yax ci dolli moom professeur Raoul lay bëgg a wax loo wax dañ ko gëm ndax am nga ci xam-xam de ma ne vaccin yi laay bëgg a wax ne jamono ji amul benn doomu aadama bu am maqaam xam dëgg-dëgg njëriñam ak la muy faj laa la wax ak kaaraange amul efficacité ak sécurité na ko rey war raw lay wax nag samay kàddu damay jottali ma ne day nii virus bii di yokkutee di muy lawe nii tiit jot na de jot na de waaye tiitaange de mun weesul jëfi ñaaw te fii am ca Cees la dafa am jégg na dayoo wàllum criminel faat doomu aadama la ilaha illa jëkkëram moo ko faat di ab belge laa la wax moo ko faat ba noppi sànni ko laa la wax ca àll ba laa la wax lii moom ñaaw na de mën a day ca màggalu Tuubaa la daal di def jëfin ju ñaaw ju ni mel libération ne ne moom jëkkër ja de ma nga am ñeent fukk at ak juróom-ñaar tey nag moom weddiwul lenn ci lu tol fatal ay ni ne moo def musiba bi mën a day moom jabar ja faat soixante ans juróom-ñaar fukki at ak ñaar la am di José Thielmans moom mii moom mii nga xamante ne mooy soxna si da leen daan dimbali de xale yi nga xam seen loxo jot seen ginnaaw la ilaha illa da leen daan jàppale laa la wax defal leen li wax ay arbre de ci lii doy na waar de li doy waar kay ba tey mi ngi ci laa la xoolam politique maa nga ca làng ga Vox Populi ne Idrissa Seck day moo recruté Cheikh Tidiane Mbaye ma ne day ancien directeur général bu Sonatel ci conseil économique social <laughs> jox sa mor ma ne day njiitalu conseil économique social environnemental boobee comme fa wuutu di Aminata Touré ma ne jamono ci tànkam de tribune yéen kaay ne moo tax imam Kanté di dànkaaf président Macky Sall ci wàll mu bañ a nag jëfandikoo utiliser wàllum lii dina nag banqaas googee ngir nag def lu ko ca neex laa sénikaa ne imam xanaa xamoo liy bëgg a xew ndax nag ma ne afanjong président Macky Sall ndox amu fa de ma ne Sall ngaara lam tura mi kor mariem ma ne nekk nii de ay pouvoir premier ministre tax ca dolli mu daal nag bëgg a yeesalaat li wax état d'urgence loolee ca la nekk de ma de ki nga xamante jamono ji ci li mu nekk di trahison mais muy turé la de baara mu mi dañ ko trahir lank dee du may nañ ko de wan nañ ko ginnaaw de ay war a gaaw Sénégal ma ne de loo ci mën di dégg te moom ku jéggi ñoom ndax amul lu mu leen nga moo tax soxna si Touré de isalawu na de ma ne wéet na de wéet la def laa la wax cay politique a ma ne soxna si Touré jàppal ne yaa ca làng ma ne maa nga ca hors péage ba la wax maa nga ca Kédougou l'observateur journal groupe Futurs Médias ko nettali de ma ne de ne ndax lii esclavage sexuel ëpp naa tekki ci ma ne de lu jëm ci nag hors péage ca Kédougou maanaam nañuy sullee or bi foofule ma ne xale jigéen ñu ngi leen fay jaay de benn million jàpp ba ñaari million ci koppar la l'observateur ñëw na nag déedéet ci wàllum nag taarixu bii la boo xamante ni dañ ko épinglé ak juróom fukk ak juróom benni cornetu ya ya ya naa ko wax rek dañ koo bind yàmbaa ma ne maa ngaa yem foofee nag li ñuy bind rek laa jot li waxuma nag simukaar yi books foofee laa ci yem ñu yenn ak jàmm